ahousubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi topp Touba Vision ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziarat di leen baalu ak te di leen ko baal di ñaan suñu borom boole ñu jégal di jiital ci nuyoo yooyu ak ziari Seex Muntaxa moom suñ Basiiru di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te gën a wér bali mu naanal Seexul Xadim mu yàggale ko te ñu ànd koog moom ak mboolem julit naka noonu it ñu ngi nuyu ak a ziar euh, Serigne Sidi moom sëñ Abdoul Ahad euh, ci màggal gi nga xamante ne mooy màggalu Seex Abdoul Ahad Eh, ñi ngi ko ciy nuyu ca di ko ziyaar ca di ko ñaanal moom tamit taxawaayam ak gën yokk te mu ànd ak a wér incha allah ba li mu naa liggéeyal waajuram bu tedd wa mu yàggale ko ci ñu ànd moom di amaat mbégte di ñëwaat ak yéen fii nga xamante ne mooy Daaray Kaamil bu ñu fi taxawee nag yaakaar naa ne ci bis bii ñu nekk yaakaar naa kenn du laaj lan moo tax eh, muy bisub Cheikh Abdoulaye Lahat bisub Cheikh Abdoulaye Lahat nag suñ taxawee biir Daaray Kaamil ci wetu barabam bii yaakaar naa bu ñu fi taxawoon ca waxuñu dara sax da xam Euh, li muy junju ndax fii bu amee ci jëmmam ak taxawaayam aku farloom pasteefam moo indi lii mu mel ne euh, ab pièce maîtresse la boo xamante ne warul mën a mënul woon a ñàkk ci yoonu murit day mel ne ab tabax la woon boo xamante ne suñu suñ ko ci deful woon day day mel ne day am bën-bën bu ca nekk wala birig bu manqué ci biir tabax bi mu nekk lu am solo ci taxawaayam ci gis-gisam bu xóot bu yaatu bu sori boo xamante ne eh, ni ma ko waxee tey jii ñëpp dem nañ ba xam ne Daaray Kaamil mënul woon a ñàkk fii ci Touba. Eh, ñu ngi taxaw nag eh, sëñ Mouhamadou Fadel Lo ngeen miin ko bu baax ci wàllum yeete wàllum xam-xam wàllum defendre l'islam waaye comme nim ñu dalee dal génération bu bari boo xamante ne jamonoonte nañ ak suñu ablaat wala ñu ñëw tuuti ci ginnaawam. ku nekk jëriñu na ci sëñ ab laxaat lu baree baree baree bari ci ay waxam wala ci ci jikkoom wala ci ci ci melokaanam wala ci ak muritam donc comme euh, ñi ngi taxaw moom dañ koy jox kàddu gi mu nuyoog mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu ci Touba Vision waaye it indi xalaatam ak euh, gisam ci sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad moomu ak euh, ban inspiration la am ci euh, jëmmi bibliothèque bi nga xamante ne euh, taxawal nañ ko fi jërëjëf aoudu billahi sami alim min alsheytani rajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala nuuri almuminina sayidina muhammadin salallahu ala ruuhi fi l arwaahi wa ala jasadihi fi l ajsaadi wa ala qalbihi fi l qulubi wa ala rawdatihi fi riyaad mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi asalaamualeykum wa rahmatullah salaamun yasuruna wa yanfauna wala yaduruna abadan bi tafsir cheikh abdul ahad al bakki radiallahu taala anhu wa nafana bi barakaatihi alif gi mooy àllaaxira yàlla nañ bokk ci ñi nga xamee ni yàlla dugal na leen ci lim ñu waxoon aljannatu lati wu'ida al muttaquun baa gi mooy barzaq sunu xayaatul barzaqiya yàlla na yàlla def mu may ni ci li ñu jàpp seen xayaatul barzaqiya xam ni dañu bokk ci al arwaxul munaamatu badala al muadabatu ñooñee di visitante di seetante euh, nekk ci foo xamee ni te fa jógee dem seen kër muy aljanna yàlla nañ ca yàlla boole ci seen barke ñoom euh, bi ci jëkk nag kon muy duniyaa mooy daal ga kooku cheikh euh, alaaji mouhamadul mahmoud ñang moo ni ma sëñ abdoulahat firée na ko noonu abadan gi kon salaam gi day ànd ñun ci duniyaa ànd ak ñun fii xayaatinal barzaqiya ànd ak ñun ca ajjana yàlla nañ ko yàlla defal inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina salaamun ala ibrahima ba fa muy waaw lépp ci biir waaye bërëb bi dama léegi gis fa ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nuurun maa diraya yaa ayyuha sibyanu la tastaghilu anil huda wa bil ulumi istaghilu fastaxilu bil xifdi wa tilaawa wajtani bu majalisa shaqaawa majalisa shaqaawa gee nag bari na lool ci monde bi waaye kii dafa mel ni dajale na lépp ndax tey xam-xam bari na waaye gu ànd ak ragal yàlla moo fi moo fi néew da nga ñu naan sama doom ji am na master 1 master 2 am na doctorat mais kilifa ga bala ma ñëw ci question yi wala samay commentaire dane woon sama doom ji de bu amoon master 1 master 2 am ay doctorat ay agrégation ba noppi amul pas-pas inna diina indallahi al islam nee na mel na ni amul dara waaye bis bu ñàkkoon yooyu yëpp ba noppi am foi bi nga xamee ni mooy gëm yàlla nekk ci inna diina indallahi al islam ma ni ñàkkul dara ndax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa nafana bi barakaati yi dañuy diinu diinaani al islaamu wa gayrul islaami moo tax lakum diinukum am waliya diin démarcation la waliya diin mooy al imaanu al islaamu al ihsaanu bil waajibi wal mandub wal mubaa as saali al muslih ku ca sax ba wàccub liggéey yàlla terale la ajjanaam waaye ku nekk ci al kufuru wal al kufru wal fusuq wal isyaan bil xaraami wal makruh wal mubaa al fasid al mufsid tafsiru cheikh euh, kii la cheikh Ahmadou Bamba mooy nekk ci weddi yàlla nekk ci mbon nekk ci bokkaale yu mel noonu. Euh, euh, awale ko ci lu xaraam lu ñu sib ak la nga xamee ni boo ca yàggee mu indi la ci yooyu kooku euh, ci bi àddalihi mu rëq sa ndig yàlla nañ ci yàlla musal kon bërëb bii rek nit mën na fi bind thèse doctorat li ma wër ci am mbind d'ailleurs maa ngi lay wax léegi ni la buñ ma ko mënee dajaleel dana am solo kon bala ñoo ñëw ci moom nag dañuy wax lu lu gàtt wax wasiya boo xamee ni Cheikh Ahmadou Bamba moo ko baaxe woon jëmm waaye jullit yëpp a ko moom dafa waxoon ne yaa ayuha naasu ubudu rabbakum bi mulaazamati alxayri wa bi mufaaraqati charri tarbahu fi tijaratikum wa illa fa antum mi man qiila fihim fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kaanu muhtadin jaalana allahu taala min alhaadina wa min almuhtadin kon yàlla nañu yàlla musal ci dallina mudillin te dañoo bari tey ci àdduna loolu ci tënk gi ci lu baax cheikh mamadul faadal bu doon dañuy feelu cheikh ahmadou bamba mu ne ba mu ko feeloo dani usikum wa nafsi bi idamati niyatil xayri wa qawli wa fi'li la xayr sax ci yéene lu baax di ko wax di ko def loola yoonu ajjana la yéene lu bon di ko wax di ko def nag moom ci ñal yi nga nekk kon loolu ba mu ko waxee bu ngeen ko defee da dangeen mel ni ki doon jaay te am eh, am ca njarte waaye bu dul lool da ngeen mel ni la ñëw ci suuratul bàqara maanaam fa maa rabihat tijaratuhum mooy dafa mel ni ku doon jaay ci boutique daal ba ci mujj yàgg nga fayit xam ne ay quelques almete ki sondeel ak yu mel noonu yoo xamee ni moom du la indil nga ñaay mu ne yàlla nañ yàlla boole ca ña nga xamee ni mooy alhadina almuhtadin badal adalin almudillin dafa mel ne foofu it euh, mënees na fee dugal euh, li sëñ Abdou woon man saa fal yu'min fa man saa <laughs> fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur gis nga mbir mi mi nii moom ñun moo tax ma ni Cheikh Ahmadou Bamba kenn du ko xeexale ci ay violence du ko kenn du ko xeexale ci ay kaddu yu ñaaw maanaam mbir mi mi nii moom ku fa man saa fal yu'min neex na nga nekk ci leneen su la neexee nga bañ su la neexee sax ngay wax la la neex ku la neex nga wax lu la neex waaye man damay naan murit bi ci boppam dafa war a dellu ci baytu boo xamee ni bu amaa am solo la ah mooy mënoo jëfe laa tafalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli shani ndax Cheikh Mamadul Muntaqa na fi yàgg te ndax moo la wax ni la demal nga insulte diw sàngam parce que wax na ci am mbindam wala ci loo xamee ne daf koo diffuser awale ko ci réseau sociaux yi ci Cheikh Ahmadou Bamba nañ xaar ba am ndigal te yaakaar naa la non violence bu Cheikh Ahmadou Bamba bi dafa am ku mas a wax ni Cheikh Ahmadou Bamba de moo wax ni Euh, maanaam bañ tubaab bi doy na jaamu yàlla ma waxtaan ceeg alaaji mouhamadul mahmoud ñang mu ni ma lépp lu génn ak daairatul mouhamadiyatu mooy iman islam ihsan neel xamal ni du waxi euh, cheikh ahmadou bamba mu ni ma Cheikh Amadou Bamba du loolu parce que pourquoi les six millions de français te trois millions nekk ci pratiquant ñooñu bu leen bañee kon inamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon Cheikh Amadou Bamba day mel ni daf koo rejeté te téere bi téereem la ci waxin déggin lay laaj nag kon ga nekk ci tubaab bi wala chinois bi wala russe bi wala bokkaale ga wala caay-caay ga loola lay lay combattre pour loola dañ tey jii lu tax buyutul islaam nekk fi France wa fi Espagne wa fi Italie wa fi Amérique xëy na bu doon la la violence la jëfandikoo loola mënoon a ñàkk wala mu am ay deng-deng mais tey jii fépp ubbiku ñuy defal islam promotion ci continent yëpp te nee naa leen fépp fu woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam àgg bu tariqatul muridiyatu dana fa àgg te loolu du Mamadul Murtadal Bakki def ci lu lu lu lu kawe njort te tey jii itam muy continuer kon nag ñëw ci moom dafa am loo xam dama la wax démb ci émission bi ñu amoon nii dama ko fàgg woon saytaane fexe ba ma ci waxin fàtte ko ci kër ga dafa waxoon ni bismillahi rahmani rahim qaala alcheikhu abdul ahad al bakkiyu thalithu alxulafai li taifati almuridiya barke boo ko rañaanee mu njett la wërsëg boo ko gàttandoo mu dëpp daraja boo ko jëndee mu xaj ab judd boo ko yokkee aw làmmiñ mu des jàngoro boo ko nëbbee mu weer la nguur soo ko falee sa bopp mu folleeku ak baadoola boo ko sooxaalee mu gaañ la waar soo bëggee mu xàgg bu mu yaatu xam-xam mooy am-am rekk soo ko foyee mu yàqu soo toogee sa sa toog jotul danga jógaat say dëkkandoo bu ñu xam sa nay say soxna bu ñu xam sa kañaan say tool bu ñu xam sa tayyeel ndigal bu mu xam sa hitte mooy sa yitte say kilifa bu ñu xam sa kañaan wasalaam léegi nag lii dërs la boo xamee ni ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel d'ailleurs def naa ko yaakaar naa ba waa Al Hibadatou Wal Xidma def montage bi def ci sama photo def ci photo Cheikh Abdoul Ahad ci kaw mi ngi circulé fi mu ne te dana dem Facebook ak yëpp waaye dafa waxoon lu am solo ndax euh, gis nga dégg naa Cheikh euh, Mouhamadul Muntaka wax ko te war nañ cee bàyyi xel fi mu ne nit ñi am na koo xamee ni fi mu ne mën naa wanteer baayam ak yaayam ngir alalu àdduna te tuddal naa la ñaar ñoo xam bar barab bi tedd na ndax bu ñu dee ne euh, wàccoonub liggéey ndax euh, ab ab ab murit du du dee damay dégg léegi nag ñu ni diw dee na ma ni ñun de ci murit duñ wax dee wàcc na liggéey wala làqu na wala yu mel noonu la ñuy wax ndax fii dañ fee nekk rek buñ fi jógee nag war a dem kani dañoo nangu sama kër damay dugal séquence su sëñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba ni ko da euh, dañoo nangu sama kër mu ni ko man de amaguma kër doomu aadama ñetti dal la fi am bu fi dogee du jógee di doog a dem këram mooy ad biiru ndeyam muy fu lëndam mënalu fa boppam dara adduna si ñuy bañante di fi xeebante di fi def lon di fi triandente alfasad nekk zahara euh, alfasadu fil barri wal bahr fasad na corruption nee naa la ay niveau la Euh, léegi boo fa jógee nag doog a dem ci euh, maanaam ñettu ñetteelu dal bi mooy alxayatul barzaqiya googu ñenn ñi al arwaaxul munaamatu la ñenn ñi al muadabatu comme abu jahlin bu fa jógee nag nee di doog dem këram immal janna wa immal naaru wala iyaazu billah kon yii ay dal la rek euh, Cheikh Mamadul Muntaqa dani boo fi amulu ngëm ngëm yàlla amoo fi dara ak la nga mën a yore lu mën a toll du la tee xiif du la tee ragg du la to feebar te da ngay la nga yore da ngay dang da ngay di jong-jongee ak moom rek doo xam noo koy def ku weddi am na ay milliardaires yoo xamee ni multimilliardaire ci sunu franc fa ñenn ñi ay américain lañ loon ñenn ñi ay européen tey jii ñoom ñëpp faatu nañu dee nañ sax laay wax te amuñu yaakaar ci ñoom kon li mu wax ci wàllu faatu moom laay indi dani ma liir ko bil arabiya su ma ne ma indi tarjumaan ji dani qaala radiallahu taala anhu wa nafa wa nafaana bi barakaatihi mi ngi ko wax ci benn uh, feetu ci màggal inni antadiru l mawta wa aalamu yaqinan annahu sa yaatiini wa xaytu yantadiru l insaanu mawtahu fala tataraqab minhu niyata sayi'atin aw amala suu'in aw il amra bih wala yanbagi lahu an yaxsha ila allah li anna kulla cheyin qad yaxaafu minhu fa inna al mawta ashaddu minhu irhaban wa ida jaa fala yastaqdimu saatan wala yastaqir kon tënk gi mooy man de làqu googu wàccub liggéey maa ngi koy xaar mi ngi mel ni lu ma ni jàkk gis ni dana am ndax kullu nafsin dha'iqatul mawt te xam naa ko bir na ma que dana ma ñëwal doomu aadama nag bu dee mi ngi xaar loolu jàkkaarloog moom wa haythu yantadirul insaanu mawtahu mu ni xanaa doo néggandiku ci moom mu yéene lu bon wala di ko jëf wala di ko digle te wala yanbaghi lahu du yal ci moom an yaxsa ila allah jalla jalaaluhu mu ne nag li anna kulla shay'in xad yaxaafu minhu ndax leneen looy ragal lu nekk dee ko gën a ngande te moom bu ñëwee bu agsee rek agsi na du du du du du wi aj du paase aj saa te lii léegi lu mel ni Ibrahima bun Adham radiyallahu taala anhu wa nafana bi barakaati waa Basra bañ nee ko waaw lu tax ñuy ñaan rek yàlla lànk te tey jii ku la neex nga ni sëñ takka ñaanal na ma waaye nanguwul waaye bu dee majalisu saqaawa yii rek moo fi nekk mu ni leen seen xol yi dafa dee ci fukki barab bokkoon na ca du mën na maa bañ a lim yëpp wa araftum jalla jalaaluhu falam taabuduuhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañ ko ndax yàlla moo ni man yutin rasula faqad ata allah wa ma ataakum rasulu fa xudu wa ma nahakum anu fantahu loolu yaakaar naa green light mënu koo passé maanaam feu vert koo jox feu vert lépp sëñ Tuubaa jël man yutin rasula faqad ata allah def ci midaadi wa aqlaami yaakaar naa xarafu nekk ñetti ñetti baytu moo tax muy 66 ab yaat yaakaar na waaye tënk gi mooy mu ni sunnatu muhammad wa adaaytum anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulukum waaye mu digal leen ba noppi nekku leen ci ndigalam mu won leen àjjana nekku leen ca li leen di tax a tàbbi àjjana mu won leen li leen di tax a mucc ci sawara nekku leen te ndax moo ne inna seytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu li yakunu min ashaabi sa'ir suratu fatih mais tey jii ñëpp dañu mu ni nag badala sax yéen mu ni wa araftumu seytaana boobu beneen la ci falam tuhaaribuuhu wa waafaqtumuuhu garaaw na de badala ngeen xeex seytaane pour maanaam mën caa mucc ndax moo wax ni lan moo wax ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim la axtani kan na ak yeneen yu baree bari yoo xamee ni luy yàqal doomu aadama rek la boo sàccee moo moom moo tax boo njaaloo moo tax boo loo def ci yu bon yooyu moo tax waaye defuñu ko léegi li may daaneele foofu mu ni itam wa araftumul mawta falam tastaidu lahu te dañ ko war a waajal wa dafantumu am waata falam ah falam taatabiru maanaam ngeen denc néew yi dafa am fii ci Touba ay année ci gannaaw ñu denc kilifa ba noppi jëm daan ni ya ñu ne ko lu xew mu ni sama portable dem na kooku naka lay jàngee ci ñuy denc si néew yow nga nekk di ca sàcc ñëw pour sàcc si ba noppi nag wa taraktum uyubakum wastaxaltum bi uyubin naas maanaam ngeen bàyyi seen ab dana seen loo xam dafa bojog kuutu sax dañ naan dagg ko moo yel ab nit yore fof foofu nga nekk ca te nit ñi dañu war a maandu donc yii bu dee tudduma ci benn fukk la woon xam naa yi ci ëpp solo wax naa ko yu nii nag moo tax moo tax euh, maanaam réew mi am jafañ-jafañ yi mu am du ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba mi moo am ay gàkk-gàkk wala mu Mam Maodo wala Cheikh Boukounta wala Saadu Abi mais ñun ñoo war revoir at suñ comportement yi delluyaat ci inna diina indallahi islam te bañ koo booleeg dara def demarcation bu toll ni bi Cheikh Ahmadou Bamba defoon ak Cheikh Abdoul Ahad ñoom ñii lakum diinukum waliya diin lana amaluna walakum amalukum ba no fa mastaqaamu lakum fastaqiimu lahum nga nekk ci yooyu itam bu ñu indee ay tànki bukki wa in udtum udduna wa in ta'udu na uddu ngay appliquer yooyu ci sëg dund loolu moo am solo am na dañ ma wax nag ni ma te seex moom ki nga xamee ni liggéey na lu bari ci téere yi ñëw fii muy alaaji Mouhamadul Mahmoud Niang nekkoon secrétaire particulier bu gane àdduna 1926 te nee na ñu ci këyit wu weex la sëñ Touba bindoon Mouhamadul Mahmoud waaye yéen waa Jolof xam naa da ngeen yàq tur wi moo tax Maamun la ñuy wax nga xam ne sëñ Touba daram du ci dem ci neen nee na ma mas na defub discours RTS ñoom ñu dem far affaire yi am jafañ-jafañ amoon nañ kersa lool pour ñëwaat ci moom waaye nee na ba mu koy waxaat dafa mel ni photocopie mënoon a wax fanweeri minute mais bu koy waxaat baat bu ta nekk nam ko waxee woon du ca yokk du ca wàññi bu doon luy am point la ak virgule nga xam ni kooku nag mooy ki nga xamee ni li nga wax da nga ni bâtiment la boo xamee ni dafa mel ni euh, keno yi koy tëyee bu doon yoonu murit dafa mel ni ay keno la ca woon wala ay birig yu baree bari ci bâtiment yoo xamee ni da caa rocce koo xam dañ naan ah, aw yow sa bâtiment de budul woon budul woon nangam ak nangam moom nag dafa ñëw mu taaral ko yóbbu ko fu dimension bu kawe xeex yi tam mbon ci dëkk bi ba am ñu daan jorxal ay leetar ci këram sama sama tante joo xamee ni nangam ñang la tudd nee na ma ñu ca bari da buñ ko tuubul dañoo mujj seen mujj ñaaw lool ku toll ni cheikh Abdul Ahad sëñ Touba amoon ca moom yaakaar war rajaaw lam yu bi nga yëkkati kàddu yu ñagas di ko wax ndax yow rek euh, li sëñ Touba waxoon ni euh, an nafsu turidu an takuna ilahan ay maanaam an takuna ilahan wa taddu ila suu wa suu ila naar nafsu boo ko toppee day mujj yàlla yu mat sëkk lay nekk wal hawa yuridu an yakuna ilahan ay matbuan wa wa yaddu ila al wal idlal ila naar ba muy ñëw ci àdduna di ñëw ci saytaane ñooñu mooy suñ ñeenti noon yi moom yëpp yàlla fodongaloon nag ko ñu sant ci bu baax nag Cheikh euh, Ahmadou Bamba mi nga xamee ni waxuma la rahma la lil alamin waaye neema lil alamin kon loolu dafa mel ni bu dul amul yeneen question di am mbégte lool nag ci Touba Vision ak ñiy jàpp ci liggéey bi yëpp jërëjëf euh, xam naa sëñ Fallou li koy daanele rek mooy euh, sëñ Abdou Lahat ni mu rawee woon jamonoom ci wàllum tëral xam-xam ak bëgg ko ak fonk ko ak yaatal ko ba nga xam ne tey jii eh, université bi nga xam te ne Serigne Mountakha mi ngi koy yeggali waaye fii ñu taxaw mu nekk bibliothèque bu mucc ayib dekk salle de lecture boo xamante ne eh, ku ko ku fi dugg du ko wuutaleeg bépp salle boo xamante ne bu moderne la boo xamante ne mi ngi nekk ci àddina ñu def ko pour xam-xam ndax fii ku ko gis ak ni mu taaroo. ak ni mu ni mu ni mu féexee pour koo xamante ne dafa bëgg sàkku xam-xam loolu it boo ñu bëggee ñëwal laatal ci ñaari tànk yooyu nga xamante ne xam-xam benn bi mu jëmmal ko ci ci ci daara euh, ci euh, université bu la nga xam ne sëñ Muntaxa ñi nga ñaanal mu mu yeggale ko jàmm ci ci ci ñu ànd ko moom dund ko lu yàgg a yàgg waaye fii it nga xamante ne bibliothèque bii nga xamante ne maanaam day mel ne su amul woon maanaam day comme ni ma ko waxee day am benn pièce maîtresse bu manqué ci yoonu murit ca dafa war dafa war am yeneen ak yeneen sax yoo xamante ne dana jariñ askan wi ci wàllum xam-xam fa man fa man araada al ilma falyattaqi llaha wa man araada arrizqa falyattaqi llaha wa man araada annajata falyattaqi llaha wa man araada an yakuna akrama falyattaqi llaha mu ñëw ci taqwallaa ñëw dimension doomu aadama ak juróom-ñaari cër yi bu ca nekk la ko yàlla digal ak lam ko tere ba noppi daanee la ko ni wasi yaa ngi nii boo xamee ni ku ko jëfee ku nekk danga am san saadata daarey ni kooku mooy fatul manaan fi jawaabi Abdirahman kon dafa mel ni une bonne de de votre question loolu tontu na ko dañu ku bëgg xam-xam na ragal yàlla ku bëgg kom na ragal yàlla ku bëgg a mucc na ragal yàlla ku bëgg nekk ñi gën a ñi gën nit ñi gën a wet yàlla jël seen xol yi dugal ko ci seen biir ñoom campagne ñu ñu woon pour nit ñi bëgg leen waaye dañoo loon yàlla nekk ci euh, toolam bi def ca lu kawe njort xol yi bëgg leen xanaa ku bon kon loolu ci fatul ma naan te moo ko ubbi moo ubbi téere bi mu lay wax nag taqwallaa lu koy maye ndax ñu bari dañoo yaakaar mbir yi da ngay jekki-jekki rek xëy suba ñu jox la ko wa taqullaha wa yuallimukumullah dimension la dégg naa foofu sax ñu ne sëñ bi mas na koy firi wa la wa taqullah wa ba mu yàgg lool wa yuallimukumullah doog a ñëw <laughs> waaw xam nga ni kon am na am na xaw a xaw a dee am na fi aw sonn sonn mais li nga wax ci wàllu maktaba bi xam nga ni lii koom koom ko fi indi ndax dem ba Égypte dem ba Maroc euh, waaye xam nga xam-xam sëñ Touba ci téere boobu di fatul maanaam fi jaam Abdurahmaan dani ñaari laay bu wàccoon kese doy bu ci bii doy ci sarafu talabul ilm benn bi doy ci sarafu al ibada mooy euh, maanaam wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabuduuni nee na boobu kese bu wàccoon doy ci wane dayoo bi mu am dimension allahu alladi xalaqa saba samawatin wa min al ardi mithlahunna yatanazalu al amru baynahunna ba fa am jeex li tax la ma anna laa ala kulli cheyin qadir wa anna laa qad ahaata bi kulli cheyin ilma bu wàccoon ci wàllu sàkku xam-xam doy sëkk wone dayoo moom nag loolu xam naa euh, lum xamoon la lii tey euh, dama ni il faut génération yi ñu waajal leen jàngal leen xam-xam yépp yi nga xamee ni am na njariñ ndax dafa am lu sëñ Tuubaa wax ni al ilmu naafi yaquudu al abda ila al jannati allati wuida al muttaquun wa amma al ilmu daafi fa yadfau al abda ila naari lati waquduha annaasu wal hijaratu wal iyaazu billah mi nga ca mañ moo ta aju wasaaya te yaakaar moo ko dajale loo woon téere bu ama am solo maa ngi ko yore am na benn sunu mbokk tiijaan ni kii de nit mën na cay defi conférence ba génn àdduna te doo ko xaajal muy tënk bu ama am solo kon dimension boobu itam xamoon na ko kon xamoon dimension xam-xam mooy mooy lijjanti mbir yi bu nit ñi wutee am na koo Cheikh Wade di jàngalekatu xam-xam nekk ca diwaanu Mbuur jàngal sama benn jarbaat bu ñu naan loo mu yore daara tey ca Kër Mbaarik nen dañu woon koo xamee ni da ngaa bëgg a jaayi ëllëg bu fi nekk boo demee ba xam say farataak yooyu rek mën ngaa dem waaye jàng ba ni ar ba noppi ni ko fi yalax di sàkku ji yeneen lu dul jàngale alquran ak jàngale xam-xam moom la loolu la nekkoon donc lee ab junj la waaye lu ci nekk yoonu murid dafa escalier yu xaw a yéeme la ndax moom ba mu koy def junj ba xëy na mooy ki koy àggale wala ki nga xamee ni moom it dana ci def lu amaa am solo yal na ko àggale mooy ci sët si lay doon. mel ne bil muntaxa euh, lii banal xudduusu madrasatan fii mooy sama gauche sama droite bu ma xoolee fële euh, tey jii ak façon yi xam-xam yi am taallamul ilma li wajhillahi dunal munafasa wa tabaahi tey jii ñu bari loolu lañ ko jëlee. te fekk nit ku ci nekk am na lu yàlla def ca moom bul xeeb mukk nit ki amul certificat sax di xeeñ xeeñtu xam am na ñoo xamee ni bañ ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba wala ànd ak maam Maodo ba mu def leen ay muqaddam ak yeneen mais lu tuuti lañ amoon ci ci niveau mais dañ leen a yëkkatee ci bu dee laajee ñu yitte ju kawee ja wala tu rabbihim bi dërs faqat lu ama am solo la ndax ku mel ni sëñ Abdourahman Lo ci li ma dégg juróom benn weer la ko ci ci zahir la koy la la koy jiitoo ci kaw suuf ci waxin waaye gisoon na ca Cheikh Ahmadou Bamba lu ëmbul woon ca moom ak ñeneen ak ñoo xamee ne sax ñoo ko féete woon ci ci wàllu zahir ci ak mag kon loolu mooy mooy dimension bi nañ gën a ñaax am na bërki démb ko am doctorat sant loo ma ne ndax ndaw ñi itam ñoom góor-góorlu ñoom it ba indi fi ay doctorat maintenant am doctorat yu am solo te itam œuvrons à ce maam changement am ci li ñuy li ñuy dax parce que wolof bii nañ ko développé nañ jàngale nañ jàngale sunu sunu langue nationale yi nañu nañu fexe ba génn ci ndëgg sërëx yi ñu xamee ni moom la ñu tubaab bi. ci ci ci ci misaal daal nañ bàyyi euh, théorie bi ca ca ca appliqué. waaw nañu appliqué parce que war nañoo dem ba am ay euh, docteur yoo xamee ni de maanaam ñoo xamee ni moo xam fu ñu ko mën a jànge ji xam-xam bi bu laajoon ñu jël juróomi bourse année bu nekk. ki fi toogal sëñ Touba joxe ko ñu jàngi xam-xam booba ñu ko jàngee ndax ñoo ñu ci avancé lañu buñ ko jàngee Inde baax na buñ ko jàngee Iran baax na buñ ko jàngee Turquie baax na wala feneen bu dee ci wàllu yeneen yi itam ñu dengoog boo ko defee àgg foofu léegi danañu àgg ba léegi sunu sëriñ sii duutuñu yóbbooti li fu mel ni France mën nañ la yóbbu comme ni ma la waxee yóbbu la ci ay hôpitaux yoo xamee ni ñu koy contrôler ay franc-maçon lañ bu ko defee ñun la duut dara loo xamee ni yow boo ñëwee tuuti ngay toogaat wuy ji euh, borom bi yooyu yëpp ñu war koo éviter sunu soxna yi sëriñ si itam waruñu ku nekk di leen tiim waroon nañoo développer structure boo xamee ni jigéen ñi dañ leen di jàngal ñoomit ñu dem ba mel ni réewum Iran wala yooyu xam ne yenn yi bu fa àggee jigéen a leen di xool di xool si mais déedéet loolu dañ koo war dañ ci war a œuvrer donc xam-xam la ñu war a jiital ci lépp li may daaneele nag jooy la yoo xamee ni su ma sañoon moom mu àgg ndax wax naa ko Ababacar Mbuub ku mel ni sëñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud ku mel ni sëñ Mbacke Abdoul Rahman ku mel ni sëñ Moustapha Diop alkoki yi ndax damay bañ rek may wax Mbacke Mbacke rek ñu ne déedéet ndax ñi àndoon ak sëñ Touba Diop nga ca woon Saara nga ca woon Lo nga ca woon ñooñu ak ñeneen ñu ma tuddul pour xale yi gën a fonk xam-xam dañoo war a jël daamar gu taaru ba noppi ñu yëg ni ñooña seen dépense bi yoonu murit moo ko yore daamar gii xalifab sëñ Touba moo leen ko jox bu ko defee nit ñi danañu gën a fonk xam-xam waaye bu dee ñoom ñëpp bu ñuy dem am na ñoo xam ba léegi ku mel ni ba Badiane léegi la ma wax woo fii di bég lool ci liggéeyu ànd sàmm jukko yi diplôme muy lu université kulliya la daanaka fag la moo ko la nekk te moom il est il est bilingue il est super bilingue te mi ngi jéem nekk trilingue léegi maa moom dañuy làkk anglais ñu mel noonu ñëpp dafa laaj ñu ñu ñu teg leen ci bon condition ba ko neefee ñi ci des dañ naan comme ni ñuy gisee daal ni hey ngeen baal ma ci barab bi ndax jullit la saajo maane wala keneen ki nga xamee ni dañ dañ koo war a sëñ bi da koo war a indi ci kii bi bégal ko muy ko mel ni Gana Gueye lank bañ a sol loo xamee ni dafa am mandargay LGBT lank ba ranguñu ko yu mel noonu. ñooña ñu naw leen lool ca football ñu it ñu fexe ba sunuy boroomi xam-xam ñu naw leen ba ko defee nit ñi gën a sonn ci xam-xam loolu daal mooy tënk gi. jërëjëf sëñ Mouhamadou Fadal yaakaar naa ne wax ji ni ma koy faral di waxee yow say wax moom lépp njariñ lay doon euh, surtout rawatina ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi ci barab bu tedd barab bu màgg ci bis bu tedd bis bu màgg muy bisub Cheikh Abdoulaye Lahad noonu nga ko waxee it fi yaakaar naa mosoon naa ko wax ci groupe al ibadatu wal xitma bi ngay wax noonu waaye nit ñi léeg-léeg seen dégg-dégg day jafe man damay naqarlu lool di dajeek kilifa ci xam-xam ci yoon wi muy mu am benn melokaan ci dëkk bi waaw maanaam du yor daamar ju muy déplacé woo këram naka noonu waaye bi ma ko waxee ña amul dégg-dégg dañoo ne ñooñu loolu ñoru leen poñatum poñatum àddina ñoru leen ca fekk man fa may waxe mooy il ne serait-ce que ñu mettre leen dans les bonnes conditions parce que soo demee ci yenn pays yu développé yi seen i seen seen seeni chercheurs seeni boroom savants seen xam-xam dañ leen di mettre dans les bon conditions pour que ñu am sax ay ay kii. comparé wu ma euh, Cheikh Mountakha booy dégg waxam zahid la mais sëñ Touba moo ni zuhdu maanaam nga dëddu dëddu ne veut pas dire que doo fi bëgg kër gu rafet doo fi bëgg soxna su taaru. doo fi bëgg euh, maanaam euh, daamar goo xamee da nga koy demee parce que ñi ngi koy jox kilifa yi. comparé wu ma parce que xam nga léeg-léeg dafa am ñoo xam ne ñoom feer lañ taxaw di xool wax yi liñ ciy jéenee mooy da nangam déedéet mais dëgg-dëgg mooy xam-xam maanaam xaalis kole ci sa xol loolu moom la ñuy bañ ci alal waaye alal am ko dara nekku ci pour Ousmane Boun Affan daf ko amoon yonent bi dañu woon dafa bon. Abdourahman bu naaw daf koo amoon daf dani woon dafa bon noo xam-xam bi dafa am koo xamee ni sëñ Amat Saxiir loola ñëw di sàkku euh, ñaan xam naa booba dafa toll ci wut ñu ànd ci mel ni ma demoon ni ko ah nañ dem ci sëñ Xaadim Sekk mu ñaanal la bañ demee mu ni ko ñaanal ko waaye bu ci boole mu am xaalis biñ génnee xam naa loolu xaw koo metti loolu mu mu mu daal di ni ko waaw lu tax nga wax ko loolu mu ni ko ndax li ci ëpp alal day yóbbu nit da koy yóbbu sawara alal ja bon mooy jëkk kole ci sab xol ba doo ca génnee asaka doo ca def lu baax doo ca mais ku mel ni nangam ja yaakaar naa murid la Abdoulaye Dia bu bii ta organiser loolu ñu mel noonu vraiment voilà bu dul loolu sax nga jël sa milliards yooyu wala sa millions yi nga defar ci wàllu maraîcher nga jël ay hectares yu dul jeex tabax ay kër comme na ko waa Alaska di defee tabax ay bënka euh, lu man 1000 personnes ci saison A wala saison yu mel noonu ñëw di liggéey mais di am loo xamee ni mën nañ caa ëllëg danañu ca mën a takk soxna man caa yore seen bopp man koo mën a sañal seen bopp pour mën a préserver seen diine ak seen seen diine ak seen dignité mais loolu dafa mel ni dafa ñàkk kon wax ji jubluwuñ ci du critique du dara mais dafa yel ndax dama ni loola mooy encouragé waaye bu ñu gisee que ni ñooña seenu mbubb du set léeg-léeg dañu am difficulté pour àgg foofa ñooñu dañoo war bu ñuy dellu def conférence bu ñu demee luy fruit mat lool luy naan yu sell nekk ca seenu kër ak yooyu loolu dafa loolu du dara euh, bu kenn wax loolu bu kenn wax naan euh, yitteeluñu luy loolu du yitte ji du yitte yitte buñ koy am ci diine lañ koy am ci yàlla ak yonent ci ci kii nga xamee ni yàlla boole na ñoo moom muy Cheikh Ahmadou Bamba man wérdul maqus Cheikh Saliou radiyallahu taala moom ma ko jox ñaareelu fan di bisub ajjuma te alaaji Mouhamadul Mahmoud ñang moo ko bind këyit bi ma doon naa ko xool bëgg koo ëndaale ndax lu may wax lu nekk day baax nga indi ca preuve sëñ Saliou na ko moo ko féete ne sëñ Saliou nekk suñu diggam ma féete fii gannaaw julik àjjuma gannaaw gi mu ne nañ ko yóbbu ca mbaarum zeng mais berndeel ko ñu indi man kese ma ma ma kii ba nu génne ci buntu ba ca gannaaw doole kon yoonu mu murid itam ñu ngi cinquante 59 ans jëm kaw dañ jàpp ni dañ cee bañ waree jàngi alxuraan jàng nañ ko bañ waree jàngi xam-xam jànge nañu fii ñu tuddee Cheikh Mouhamadoul faadal tey te ñu fay génne niveau bac bu njëkk ay enseignant la daan formé muy institut franco arabe. Ah, sax dinaa ci yokk benn kii bann euh, du question waaye ñaax booy doole ndaw ñi fii nii bu yàggul rek ay ndaw yu yu kéemaane nekk ci daara yi Serigne euh, kii Bousso damay fàtte tur bi Serigne Abdou Lahad Bousso juumul bu nekk fii sura di jàmbaar lool encadré ay xale yu bari ñu ñu jàmbaare ci xam-xam xale yooyu euh, korog sëñ Moustapha Diatar dafa toog fii di yéemu. ci ci ci ci liñ bind ci xam-xam donc xale yooyu pour ñu bañ a décourager lan nga leen di jox comme yóbbal ñu gën a euh, ñu gën a tée ab ñàng ca bañ comme ni ko sëñ Tuubaa bindee ci ci ci euh, liñ bind sax ci bunti kokki nan la tuddati euh, bi muy ñaax ndaw ñi pour ñu pour ñu pour ñu farlu ci xam-xam damaa teewlatul xasida gi waaw euh, euh, euh, tey mi ngi bari na fu mu fu mu yaatu voilà xëy na mu ñëw waaye de toute façon loo lu ñu bëgg a jublu mooy lan ngay ñaax ndaw ñi sàkku xam-xam ngir ñu persévérer ba ñu mel ne yéen fi ñu toll ci xam-xam ñu ñoom ñu bañ a daxale dara seen diggante xam-xam dox rek wutali xam-xam. est-ce que baytu bi nekkul ci zadul muallim yaa yaa yoos subaan non li nga wax noonu moom nekkul foofu man am naa ko mais yaa yoos subaan in xiftum xajal fa qaddimu taallum taalluman ala amal yaakaar naa la mais li am solo mooy euh, boo tolloo ci jàng moom dama naan ndaw ñi ñu jox ay sachet ndox ñu koy jaay jox leen banaana fii jox leen gerte caaf dañoo yàkkamti rek euh, yaakaar naa wax ji ma wax léegi euh, gàttandu sa wërsëg mu dëpp wala yu ma xamul yu mel noonu waxi wu ko noonu man dama paraphraser mais li am solo mooy nga def sa focus bépp ci jàng jàng nag du diplôme kese mais jàng mu ànd ak éducation parce que enseignement wala instruction bokkut ak éducation mais nañu def éducation bi ñëw ñu jàng àndaale kooku yar bu ko defee nag léegi dimension yi nga xamee day ubbi ko xam-xam nag boo jàngee xam-xam bi nga xamee ni moo lay xamal sa diine ak yëpp ba noppi mën nga yëngutu ci yeneen yeneen science yëpp yi ubbi ko moo xam médecine branche boobu nga bëgg a topp moo xam ci domaine u mathématique wala leneen wala yu ma xamul ba bokk ci savant yenn yi nga xamee loolu lépp nga def ko mais ci départ bi li ma gis mooy am na kilifa goo xam politique lay def nee ndawi Sénégal ñu ci bari euh, maanaam dañoo yàkkamti te itam ñu ci bari maanaam la am duñ duñ ko tàmbali maanaam di ko bokk ak seeni waajur wala yeneen loolu itam day tax euh, ay gàllankoor yu rëy man de nee naa ba ma nekkee étudiant sama première vacance sax damaa aw Paris liggéey fa tuuti. mën a mën a jënd sëri ca nee naa man ba ma nekk étudiant laa tàmbali jënd ay sëri ca donc ñu jéem a baax ci seeni waajur jéem a jaamu yàlla itam ci seeni baay wala seeni i yaay mais le plus important mooy jox gëdd xam-xam sàkku ko waaye nag mu bañ a dindi dara ci sax jaamu yàlla maanaam ndoon ndax ñaari ñoo ànd xam-xam yoonu murid dafa leer nañ ñett rek la est-ce que yëpp ñu ay ayun ibaada wala ilmu ibaada ndax ilmu moo lay tax nga mën a am ibaada amal ñëw ñett ñetti ayun yooyu nañ ko bàyyi xel loolu buñ ko defee xam naa lii nag ku ku ci man a bind mën nga cee bind thèse doctorat waaw. jërëjëf sëñ Mouhamadou Fadal ñu ngi lay santaat di la gërëmaat noonu ñu ko waxee woon ci ubbi gi rek euh, bis bu tedd bu màgg bi doon na yell lool ñu taxaw fii ci maktab bi nga xamante ne Cheikh euh, Abdoulaye Lahat moo ko fi taxawaloon euh, ñu fàttaliku ko waaye fàttaliku li mu fi jëmmaloon kon foofu rek la ñuy wàccee kàddu yi di leen jox dig daje ci yeneen jataay yoo xamante ne yu concerné bis bi la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu